Sadio Ndiaye gërëm beneen bi laa dëkkal fii kër gi yàgg na ma dëkk may bale rek mu daan ñëw fii daal may saaga ne ma daan arrière ba sax waxu rek xalaat naa sama kaw mu dugg sama yëngu fekk fe fe benn yi dugg rek daal di ma koy góor faj sama bopp bi moo ko jumbo loxo bi dafa xaroon dañ koy ñëwoon daal di ma daanu ma daw di génne buntu kër gi rek daw rek poj bay dem xar yax yi moo xar ba def nii may ñaan dimbal ku ma si dimbali te yàlla rek a tànga faj ma man maa ñëw doole ajuma ma noonu opéré ma dem bolok ñu amoo fay daal di may génn amul ma fay xam nga deux mille ma dafa merci koo ko jox te amu ko day sonn ñu ma dama toog ba nga am loo fay nga ñëw te xam nga tànk pooj mënu xaar yenn lii laa wax maa ngi lay ñaan ku ma ci dimbale faj ma sa yàlla rek a tax loolu faj bañ ma ku ma taxaw dox moom rek laa ñaan yàlla ku ma ci dimbale rek sa yàlla tax dimbale ma si ngir yàlla waaw waaw awa am ñaari semaine am na ku ma joon ma dem ba fajoo dafa faj musical ñu dem ba opéré des ndekete yow kiyam bi sama opération xaju ci attanu ko moom sax dafa dafa meeroon xult ba sol ne li nga ko mën a defal dafa leen ko si ñu ko si musical attanu bi nga xam ne opération bi bolok dafa war a fay juróom ñeent fukki jën opération fee six cent mille nga war a fay ak ordonnance yëpp ñu bolok mu nekk deux millions fu ma koy ma dëkk gi xam nga kër gi yàlla xam kay amoon baax lu fa dëkk maa ngi ñaan dimbali rek ku ma si dimbali te yàlla tax nga defal ma ko te yàlla rek te yàlla rek a tax ndax damaa yor sos ma si ma doom ba ma yor yàlla xam doy na daal dama la neexal ay ñaan dimbal ay sabar bi boole ma ak doomam yi mën nañu ñëw firma la ñu jàpp see ba xam waa ñu jërëm tiir maa ngi nekk ci loxo yàlla su may wàcc dañ may wàcce xamu ni métti na si mag na si mag maa ngi ñaan yàlla képp si waay am ndimbal rek te yàlla rek a tax ñu dimbal ma see moom opéré rek ma mën a dox ndax lii instance mu waxaat dara mais mais di dimbali ay fukki jëli fukki mu faj nit fu ñu yaakaar yaakaar dara sama doom daal mu ngi sonn day jig rek day jig rek kenn du ñi ngeen def effort ba ñëw nii ah si am yaakaar kenn ma jotul kenn dimbalu ma ma tëddee ba léegi lu ma am waa koñ bi sama doom yi ñu lalel seen waaye am tax ma ko rek ma tax sama doom bu jigéen mu toog ndax da daan jaay te jaayul jëkkër mu liggéeyul xam nga ñëpp la metti dafa jooy ba sonn wala ba taal ñu dañu lalel ku ne am rek ñoom jox ma daal jox ko mu dugg toggal ma ma lekk waaw xam nga metti na mais kon amoon na sax ajuma yi may boole de dañ ma opéré waaye nag bis bi attanu ma ñu jël ma ko bis waaw waaye xam nga ko doo taasoo da ngaa dëkk sa morom dëkk doo ko ne kenn génne sa doom yàgg naa ko ni ko fajee sa doom bi ndax ni mu ni mu lay attaqué bu ko attaqué jàmbur dana ko gaañ mun ma kii de mënalu ma ko dara ndax ab dof doomu la waaye léegi nag bu ñu ko jàppee bu ma doon ñu yóbbu ko police ñu jàllale ko saa xam nga pëlëku mooy tëj mooy siti pëlëku xool ka daan bi kii ab dof la kenn du ko si tëj dañ wax yaayam mu yóbbu ko mbaaw fay lal bi ñaar fukki junni fay gardien bi ñaar fukki junni ñu téye ko fa wa illaa ku ci wete dëgg yaam la ñuy tëj ma man mun maa toog instant yi ma toog nii mun maa wàcc aw ma dërëm su location yi foo dem ñu ne ñetti avance waaw bul noo ko nooy fooy amee fooy amee avance ma amoon avance xam nga ma jàppale ma wéree damay toxu rek bàyyi ko kër yi ma instant yii man maa toxu ndax wéru ma boobu damaa si benn place su may wàcc dem sangu sangu waay dañ may yëkkati waaye dafa leneen duñ may yëkkati xam nga ñooñu ma da fi ma daanu fi ba léegi doom def ma nii ba léegi yóbbu ma fee si benn benn kii kii maanaam clinique benn clinique bi mu faj ma. ñu def leen defal kàddu gi ñu fa mën a jot buñ ci tànk bi fa dem seet leen ni ngeen koy def ngeen faj ko mais poche bi moo dérangé waaw. léegi nag boobaa léegi bu ñu xëy ba yëkkati fukki dërëm ñu am jënd ko mburu wala nga jënd ko bëtt nga naan mu soo am waxee nii la ma romb dem yoonam mu wàllu mu tey ceeb dem jaay ko a mun ma kaa jënd ak lu ma kaa soxla bon kër tey moo ko mën a jënd bu ko mën a jënd tey dina ko mën a jaay ay juróom waaw madame Marème Faye Pétra maa ngi lay ñaan baax da ngeen si réew mi maa ngi lay ñëw dimbali ma ci lu gaaw ak Alioune Sall yéen ñëw lu si gaaw rek bëgg naa ko yéen ñëw dimbali ma ci lu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw a gaaw ndax sonn naa sonn naa jaaxle naa Marème maa ngi lay woo woo na Alioune Sall Alioune Sall mii mooy suñu maire gox te mis dañ koy wuy ci ñaan naa yàlla Alioune Sall nga ñëw ci lu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw gaaw ndax sonn naa jaaxle naa sotuma ci kenn te dama dama fi ma dama nii mu naaree nit maa ngi lay ñaan di mel ci lu gën a gaaw a gaaw a gaaw gaaw nga ñu faj ma ah waaw association ñi man njaboot maa ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi leen di ñaan di mel ci lu gaaw a gaaw a gaaw gaaw li ngeen gaaw tax xam naa ko ndax sonn naa mu ma bu ma dijoo dañ may yëkkati su may lekk dañ may yëkkati yéen waa ISRA so so dimbal njaboot bi ñaa ngi leen ñaan dimbal ngeen dimbal si lu gaaw a gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw ndax sonn naa yéen rek laa yaakaar ginnaaw yàlla waaw